auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ Tuubaa xaadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen ndokkeel ci at mu bees mi waaye di leen ziare bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu nekk muy weeru muharram mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba ci daarul xuddoos ci bayti ci kër Serigne Touba cheikhul xadim dañuy daal di ñaanal bu baax a baax cheikh Muntaxa Mbàkke mi fi nekk Euh, ci bopp njabootuk sëriñ tubaa mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ziare ak a ñaanal sëñ Ahmadou Moukhtar mi nga xam ne ni moo toog jataayub Cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ak mboolem judditi ak taalibe yi mbokk yi xam ngeen ne jataay bu tedd bi ñu koy amale fii ci bayti buñ koy def am na xew-xew bu màgg buy jub si muy ñaar fukki fan ci weeru mu di bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam fii ci Touba waaye xam ngeen ne taarix dootu ko fàtte ndax ay dénkaane yu am solo yoo xam ne nii waxoon na ko Cheikh dul Moustapha mi ko jëkk a wutu ci njaboot gi mu taxaw ko ba def ca lépp loo xam ne nii sëriñ ba doon la ko bëggee woon loolu tax na nag xam ngeen ne saa su bis biy jub si commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci daayira wala mbooloo mu di diwaanul muridina lëkkale mboole munti kër yi Cheikh Modou Moustapha yi di ko laltaaye ak a waajale ay waxtaani diine yu am solo xam ngeen ne nag loolu moo tax ñu nekk nag ci suñu ñaareelu jataay am yéene nag fas yéene dalal ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Seck féete ñu ndijoor ak Serigne Cheikh Fall Taïf ñu fas yéene waxtaane nag tomb bu am solo muy Cheikh Modou Moustapha ak njaboot gannaaw bi fi Cheikhul Khadim bàyyeekoo ba mu def lépp la nga xam ne ni Serigne bi santoon na ko ban taxawaay nag la amoon ci njaboot gi ngir bañ a jëkk ngir bañ a euh, guddal dañuy jëkkante ak waxtu wi jox suñu euh, jëwrin Serigne Bassirou sekk mu daal di nuyoo ñu door a àgg ci Serigne Cheikh kon bisimilah. kuy ni deglu ak di nu setan ñi ngi leen di nuyu nuyu bi moy mooy alaykum wa rahmatullah tambali nuyu bi ak siar bi ci borom bi di Cheikh Ahmadul Mokhtar ak mbolem jabar Cheikh al Moustapha gep di ñaan suñu borom jagal ko fi lol te wéral ko di ñaan yalla itam jotaay yi suñu borom dajale ñu ci ak tawfiq serigne bi kon sering Abdullahi ñi ngi taxaw lu inshallah allah. jërëjëf sëriñ Bassirou ci nuyu yu am solo kon sering Cheikh Fall Taïf niñ ko waxe leg rek euh, ñu jox la cadeau gi nga dal di nuyu ñu dooro dugg nak ci bi muy cheikh Modou Moustapha ak taxawaay bi mu amoon ci njaboot gi ginnaaw cheikhul xadim kon bisimilah nuyoon. aouzu billahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawirin wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax ni ñu ko waxee ci pàkk bu tedd bii ngir waajal bis bu mag bis boo xam ne nii bis bu am solo ci yoon wi muy bisu bi Seex Xaadim bi ñu bisee woon fii ci Touba ni ko sëñ Ablaye waxee nag ñu koy laytaayale ak ay waxtaan yoo xamante ne bii dana gën a mën a fàttaliwaat nit ñi Cheikh mu Moustapha waaye ak wajurum woowee waaye ñu gën caa mën a jëlee ay bind nag yoo xam ne bii danañ ko tari ngir mën a waajal suñu ëllëg kon xamaa loolu lenn la rek ci jataay bii bokk ci plateau yooyu incha allah sëñ Ablaye jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci nuyoo bu am solo boobu xam naa kon dañuy desandi ci yow rek laaj bi ñu jëkk samp ñeel tomb bi nga xam ne ni tànn nañ ko tey buñ bëgg na xam tey njaboot ban wàccuwaay la am ci lislaam sukkandiku ci alxuraan ak addis loo ñuy leeral foofu. waaw jërëjëf sëñ euh, njaboot de dafa bokk ci li nga xam ni lislaam jox na ko dayo lool jox na ko wàccuwaay bu baax a baax a baax ci taxawee ko. waaye saytu ko ngir mu mën a jof ca buy jof sit maanaa jof ak ànd ak ni ko boroom bëggee woon ndax suñu waxee njaboot mooy ay jaam lan doon ay jullit mu mel ne suñu waxee njaboot nag la ñuy wax rek mooy kaleen jaboote kaleen jaboote nag kon mel na ni am na responsabilité bu rëy boo xamante ni bii euh, su ko xamee ak bu ko xamut santeef na ko ko te loolu yaakaar na ni nga ko waxee alxuraan wax dëgg wax ci lu baree baree bari yoo xam ne bii day delloo nit ki ci mu bàyyi xool njaboot gi nga xam ni moom la jaboote loolu nag yaakaar na Cheikh Amadou Moustapha mii waxtaane sàmmonte woon ak moom lool ndax moom ñëpp xam ne ay jëfam ginnaaw dafa waxoon ni moom ak jub rek moo ko doy ak njub nag ku ko bëgg a tànq faaw da dellu ci alxuraan waaye da ngay dellu ci hadis loolu nag kon moom moo taxoon mu bawoon xel ak njaboot lool waaye maanaam nag teg ko ci njàngaleem lislaam maa ci muy ci njàngaleem diine loole nag boo demee ci alxuraan da nga fekk ay ayat yu bari yoo xamante ne bii day bàyyiloo xel nit ñi rawatina jullit ñi importance gu ak njaboot am importance waaye taxawu guñ leen war a taxawu nga xam kon day mel ni njaboot dëgg-dëgg ngir mu mën a jof ca ëndaale lañ koy soxlaa day aaja ak taxawu loolee kon moo tax ay ayat yooyu baat auzu billahi min shaytaan rajim suuratu suuratu tahrim da ngay fekk suñu borom wax naan yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naara wal hijaara alayha al malaikatu xilaasun sidaadun laa yasacuuna allah maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun maanaam suñu borom di wax ni yéen nit ñi kat na ngeen fegal seen ndax su waxee ahli mooy seen ñooñ rek may mooy seen njaboot na nga leen fegal sawara ndax sawara soosi su su tang la mana doon doju tang ca it ay malaka yo xamanteni bi mana ñu mané mbugulé lañ ca ñom nak lepp lu def rek suñ borom molen leen ko sante kon bu ngeen bëggé muccu ci sawara kon na ngeen ti ma na ngeen fexé ba seen njabot ngeen moytulu leen ko ca teg leen ci yoon yo xamanteni bi dara bii danañ ca jaar ba mëna caa muccu loolu nak melni buñ ko waxé day joxañ yu bare bare bare bare bu fekkenteni da nga bëgg a sa njabot ci sawara euh, nonu ko lay yi waxee nag noonu nga ma demé ci hadith yu bare bare yu koy firndel donte laa yi sax mën naa mën naa ni bari waye da ngay fekkat ci hadith yu xamante bi day firndel lolu alquran alquran wax ndax hadith bi nga xamni mom la ci abu abu hurayra radiyallahu anhu muy wax ni mana dundal sak njabot maanaam nga jël sa alal dundale ko sa njaboot wala nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël sa alal def ko ci fayal nit ki ay borom wala nga jël sa alal saraxe ko wala nga jël sa alal jox ko ay miskin nee na li muy am am am solo jël sa alal léegi financé ko ci sa njaboot nee na mu ëpp ab yool loolu kon la muy tegtale mooy importance gi nga xam ni ak njaboot am nga ko ndax yi ñu wax nii yëpp. ñëpp xamni yool bu mag mag mo ci nek waye limi bari bari ay yool sa alal ji nga jël dundale ko sax njabot tegg leen ci aw yoon Seydina Abu Hurayra neena na yonte bi alayhi salaam nee na la ci nit ki di amé ci ab yool do ko amé ci yeen yi mu wax ni yëpp waye nga demat ben hadith boo xamni bi ibnu ibnu Mas'ud batay moko netli xamna batay du ma wax o fofa dafa wax ni nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël ko sa alal def ko ci lu mel ab xare ak yenn yu mel noonu nee na nga jël sa alal dundale ko sag njaboot ngir ñu mën a tege ci aw yoon ngir mën a jaamu yàlla nee na la ca jaam bay jëlee kenn du xam nan lay toll kon mu ëpp ab kon yi wax nii kon loolu la muy tegtale mooy waaye nag dundale gi ngay dundale sag njaboot sa alal mooy ngir ñu mën a tege ci aw yoon ba mën a jaamu yàlla kon loola bokk na ci yi nga xam ni ay ay xadis la yoo xam ne bii yuñ mën a sukkandikoo la waaye soo déggee benn xaalis bi nga xam ni ba tey ibnu Mas'ud moo ko nettali ngir ah, njaboot niñ ko war a responsabiliser nga xam ne day wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an raa'iyatihi léegi yooyu nag mu koy xajale di wax ni borom kër bu nekk maanaa mas'ul la an raa'iyatihi ci ak njabootam waaye di wax ni imam bu nekk mas'ul la waye di wax ni soxna su nek sax responsabilité bañ la jox ci sa kër manam responsabilité bi nga xamni sa borom keur dala ko jox ci ak njabotam wala ci ay mbiram yoy masolo nga ci te yii nak kenn ko ne koy inshallah lolou la kon day day joxe ni seigne Mana manam ak njabot dañ ko wara taxaw bu baax a baax euh baax nak melni suñ ko dee taxaw dafa bari ay fan yuñ koy taxaw bi ci taxaw ak njabot dara jiiru ci yar ko manam yar sa njabot bañ teggu ci aw yoon bobu kon dara du ko ci jitu bokku na ci it moy nga xamal ko ndax nitit ngir mo tek ci mo tek tankam ci aw yoon day xam waye bokku na ci it manam nga tabax ay jikko yu rafet ci mom jikko yoyu nak bi ci njëkk moy yow sa fan bop yow sa jimi bop yaay defar sa bop ba nga xam sa njaboot li ci yow day doon jikko yu rafet day doon jëf yu rafet nga xam ne maam du mën a roy la ne lu dul loolu bokk na ci sax yaru njaboot mooy nga tànnal ko sax wajur bu baax maanaam yar maanaam am njaboot gu baax bokk na ca nga tànnal ko wajur bu baax ngir bu ci jógee moom it mën a am référence wala mën a am cëslaay lu mën a tegee ba ci aw yoon bokk na ci sax bëggee njaboot gu baax it di leen tàggat ak di toppatoo seenu wér-gi-yaram maanaam ndax nit fi ne mën naa yonjox yonjox ba tey lañ lañ bëgg ci moom dëgg-dëgg mën naa bañ am te la koy waral mooy ak ñàkk wéram bokk na ci it maanaam nga yittewoo sa njaboot ci seen i maanaam seen déplacement ku ñuy àndal lu ñuy def ak lu ñuy wax loolu lépp nit ki da ko yittewoo ngir mën a mën a teg ak njabootam euh, ci aw yoon yooyu kon sëñ yenn la ci yi nga xam ni mas na koo jël cëslaay ci ku bëgg ubbi ak njaboot wa ila nga am njabar njabar gu baax mëno ci ñàkk a taxawi nii ginnaaw bi nga xamni alcorane wax na ci ay ayat yu baree bari kon joxal ko importance kon day melni taxaw ak njaboot farata la kon ñàkk taxaw sax njaboot day melni nit mëna ca caa bakkar mëna ca na sax euh mëna ca suñu borom gëna yëne bi ali sallahu wax ni ku am ñetti doom yu jigéen taxaw leen di leen toppatoo bañ am borom kër ci yalla dogal ñoo ba am borom kër suñ borom am lu ma ci warlul loolu kon na nga ciy ni comme ak nak ci ca wo len ba ayib am ca kon ñu non nga ci ay bakkar kon daal xam ne sëñ ci teunk lolu la mes ko juddee lolu ak Cheikh Amadou kon taxaway bi mana tax ki nga xam ne moom lu mi def lepp ci diine la ko tek ginnaaw bi mu ko tànka ci alxuraan ak sunna kon nak motax motax nak mu taxawee ni nim taxawé njabot gi ba kenn ko ne mën jaar ci yoonu Cheikh Ablaye macha allah sëriñ Cheikh Fall Taïf non nga ko waxe rek xamna buntu bunt lañuy la euh ubbi jox cadeau gi serigne euh, Basirou Seck waaye dañuy def benn résumé bu gàtt rek ci li nga xam ne nii traité nga ko muy euh, importance ak wàccuwaay bi nga xam ne nii njaboot am na ko ci lislaam nga sukkandiku ko ci alxuraanul karim ak addis kon mel na ne ab responsabilité la boo xam ne nii gàccu na ci ndoddum képp koo xam ne nii rek am nañu la suñu borom booleel xam naa ne bu ñu waxee njaboot dañ mën nañ ko partager en deux parties njaboot gi nga xam ne ni suñu borom dafa dogal mu meññe ci yow ak ñi xam ne nii yaa leen ci njaboot loolu dinañ ci dëkk kon sëñ Basiru bu ñëwee ci thème ci ci tomb bi daal di euh, sukkandiku ci li nga xam ne moom la Serigne Cheikh Fall Taïf wax dañuy daal di ñëw ci Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou euh, Cheikh Modou Moustapha gannaaw Serigne bi taxawaay boobu nga xam ne nii am na ko ci njaboot gi nga xam ne nii moom la ko Serigne bi booleel muy njabootu boppam loo ñu mën a baaxe foofu. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci tomb yu am solo yi nga xam ne andi nga ko mel ni nit nag bu fekkee ne daa am lu muy waajal. la ca jiiru mooy fondement Cheikh Mouhamadul Moustapha nag ñu wutal ko fondement bu dëgër ci aw askan waaye ko fondement bu dëgër ci xam-xam tànnal ko néegub ngor tànnal ko néegub jom tànnal ko néegub fit yar ko boole ci kon kooku li nga xam ne moo war ci waajtaay Cheikhul Khadim waajaloon na ko sëñ bi am ay ponk yum tënk ci yoon wi yoo xam ni sopp da caa bokk tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin nga xam ne cofeel dafa bokk ci lii ponk yoon bi cheikh Mouhamadul Moustapha amoon ko lool ci cheikhul Khadim xam nga Seydina Aboubacrin Saddiq li tax mu ci mboolem sahaaba yi yonent bi daf ne woon du julli bari du koor gi bari walakin xarra fi sadrihi lu ne ci xolam la lool nag mooy soofeel ga daana waxit ne man araada an an yansura maytan yamsi fawqa sira fawqa sira fal yansuri ila abi bakrin ku bëgg a aji dee juy dox ci kaw suuf na xool aboubacrine sadiq bëgg gi mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wàjjoon res bi ba nga xam ne buy wax ay seer dalay lay xeeñ ngir bëgg moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon cofeel googu moustapha da tubaa mënatu waaye nag lépp mu lalu ci xam-xam ndax cofeel bu àndut ak xam-xam noonu bu xam da koy gën cofeel googu nag moo tax gannaaw sayxul xadim bi nga xamee ne indi nañ ko tubaa ci nam ko bëgge won digëlon ko Cheikh Moustapha ba nopi maam cierno bi ñëwé daf neewon seigne touba ab julit la ab julit bu fi ñëwé dañ koy mirage seigne Modou sallam ca tek moy kër lu ne mëna taxaw bam dess des la nañ wax ñaat la ma fay ko fay ah, li limay ñëkk nak ci njabootuk bopam ak njabootuk sëriñ bi fay njëli bam mat mat la ne liggéey baax na lool ñu tambalé nag di dundé li won ci kër gi bam jéxé néna bayiwon na fukki fukku tundoti sàq mu jeex ma bojjaat meneen indi ba mi laata ba dugub jooju laata njeex dugub ñoraat na daal di yiir magi bar sàq yi ba kenn du leen fekk fañ nekk te loolu leen war daan leen fa fekk loolu mu taxaw ci njabootu sëriñ gi sëriñ bi ñi ci mat a jàng ak ñi ci mata làddanti moo ko defal boppam mel ni mooy seen waajur cofeel gam amoon ci seen waajur mu séddale ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk kenn ku nekk la war ci yow ci taxawaay mu def ko ba mu sëkk loolu nag addina dana ko laaj jamono yi nu toll ndax bare na luy am loo xam ni mag mu déggalul waajuram su bëgg a yilifi rakkam ñëpp xam nañ ni mënta nekk waaye ku déggal si waajur boo bëggee yil say rakk mu sotti kon loolu ñu bari war nañ ci jànge aboubacarin sadiq la ko taxawoon mu yilif sahaaba yi daa déggaloon ñu tabi salaatu salaam bëgg ko bëggeel goo xam ne kenn dëbb ko ci cheikh mohamadul moustapha it noonu la meloon ci noonu la meloon ci cheikhul xadim ba tax li manoon ci jaboot gi mu def ko ci wàllu yar ñi nga xam ne moom la yaral boppam moom Serigne Touba ak ñi sëñ Modou Sayer mënoo leen a xàmmee moo sëñ Blaat daan wax ne lu ma naqari lu leen naqari ci man na ngeen ko lu ngeen gërëm lu leen neex ci man ak lu leen naqari ci man na ngeen ko gërëme Cheikh Moustapha ndax lu Cheikh ko ci def euh, na ci ak matam bi nga xamante ni bi ku mel ne Cheikh Mouhamadul Mourtala bokkoon ci ñi gën a néew ay at ci jamonoom bi mu jàngee ba ñëw amutub dëkk dëkk bu mu sanc boppam Touba mu nacc ko sanc ko 1922 moom la fa tuxale amee boppam yóbbu ko Madina jël tubaakaay jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtala sëñ Abdoulahi sëñ Abdoulahi naka noonu bi nga xamante ni bii dem na ba war a amub dëkk dafa jël kàbbu gay ci doxal la ko Serigne Touba dénkoon juróom yooyu ne ko bu ma fi jógee nag ma yóbbu Touba te bu xaddam nag ma taxawal njaboot gi te ba ba buñ jooy baay bis bi ma fi ñëwee saa bu del see nag ma woor ru yëpp ñu daja fi sama dëkk bi nag ma fi taxawal jumaa euh, na nga ma saytul sama dëkk ba mu nekk ci loxo ñi ma fi nekkal juróom yooyu Cheikh mustapha réussir na yëpp gannaawam lool nag ab xam-xam ak aku fit akum xel ak njàmbaar moo ko may waaye bu ëppoon mbaa mu yaafus mbaa mu ragal dana ci am loolu dana ci manqué kon loolu moo tax buñ ko woyee kamaal lu mënu lay doon njabootuk boppam gi yar na leen yar boo xam ne ñim yar kep mën nañu yor àddina boo njëkkee ci ñaari doomam yi nga xam ne ñooy ay taawam am nañ melokaan woo xam ne njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp bàyyi woon nañ leen xel ngir seen melokaan Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke ak Sëriñ Mbakke Madina moo leen tërbiyaal boppam yaral leen boppam ba noppi nag xamal leen lan moo di murit ndax nit mën naa jàng ba bari xam-xam waaye dana am lu mu umpale ci murit gi waaye loolu lépp da koo def ci ñoom ba taxoon ñoom it ñu mën a yor àddina Cheikh Moustapha bokk na ci xam-xam bi nga xam ne moom lay def ci nit ci kattanam ba nga mën a yor àddina mooy da koy tàmmal teraanga yar ko ci teraanga ba nga xamante ni bi fu mu mën a nekkati nit ñi rek a fay ne ndax daana wax ne boole nii ñëpp soleen ci mel mbedd nay mbeddum teraanga Cheikh Moustapha bokk na ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci gannaaw njaboot gi képp koo xam ne kii war ngaa lu la sa waajur waroon defal cib taxawaay def na ko ba mu mat sëkk ndax daana wax na kenn ku nekk ka ngay dëkkaale maa koy seetal saa bopp waaye duma la bàyyi nga wëral ko sa bopp ndax keneen koo fi indi day yor doole sëñ Tuubaa ak xelu waajur mu jigéen moo tax ñëpp moo leen taxawu ci fi leen sëñ Tuubaa waroon a féete kurut Cheikh Mouhamad Fadal doo Cheikh Mouhamadul Amin doo sëriñ Abdou borom dër bi doo sëriñ Basiru la la war ceew lépp ma Moustapha moo ko def tax wax nañ ne soxna Astu Gaawaan toog diir bu yàgg defe ne Serigne Touba sëñ Modou Sa kenn la ci taalibe yi Serigne yi ndax loolu la leen daan wax sëñ Saliou ba ko jox këram gi ci mbuur daf na ko dogal ma ne ñoo bokk de dogal ma ne taalibu Serigne Touba la mu nangul ko loola waxoon na ko ku mel ne Cheikh Mamadou loolu lépp daa leen ñemeloo boppam ndax kilifa day ñemeloo boppam ak njabootam bañ mañ koo di soxla loolu Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko ci moom yiir leen nag ba jenn lor du jóge ca gannaaw di leen fekk fañ nekk yiir leen ba jenn lor mënta jóge feneen fekk leen fa nekk loolu bokk na ci li kilifa mënal moroom ja li kilifa mënal ak njabootam Cheikh Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci gannaaw Cheikhul Khadim ci njaboot gi naka noonu itam kenn ku nekk moo saytu sam njàng sama waajur moo ma wax ne ma sëñ Tuubaa moo sëñ Modou saa moo jàngal sëñ Mortala mi bari nee na mas nay séddale reer bi ca Taïf ñu ne ko Mbàkke teeñ koy jox nit mu di ko séddaleel te nga nekk ci yeneen yitte mu ne damaa bañ jox ko warta am ak xañ ko war a am sama baay moom ma wax ne ma moom ma téyel alquran ma tari maag sëñ Ibra ab sëtu nee na ma lii ci moom laa ko gisee téyel ñi mokkal di jàngal nit ñi xam-xam di jiite ca jàkka ja di séddale reer bi sa bopp nee na kenn nettalu moom moo ma ko moo ko defal mm-hmm. te nee na ma itam lu ñu la mën a wax ci moom man gi alquran moo ndax mak seigne Ibra Absatu la boole di téyalandoo te bi seigne ibrahim Absatu gaagee ñetti yoon dafa ko da ngay beq jiwat nee sama baay nee li mom takkat seigne ibrahim Ibra kon koku nit la won ko xamni ki buñ la woné jëm ji da ngay def ne dundu na juroom ñaar fukki at cinquante faala dund mhm. mooy masta noppalu macha allah yitte jooju nga xamni mom la joxoon ndénkaani seigne touba ak njabot gi mhm. taxoon na 1943 bi mu wéradee mhm. bi seigne Basiiru tàggu ko ne ko dama bëgg andi ñu saytu yaram bi docteur yi bañ ñëwee lañ ko wax mooy kii daa nelawul amut ben maladie bu ne ci yaram bi Euh, biñu démé ba bind ordonnance ba jox sëñ Basiru mu ko sa gaay luñ wax mu ko nee nañ ami woo jàngoro de waaye dangaa néew mu ne waa wax nañ dëgg de ku bax bi fi joggé léegi néew ma jàng bat guddi té lool lépp yitte yim amone digg mak boromam ak yitte ji nga xamné amono ko waroon na ko ci njabot gi ak ndénkaan sëñ Tuubaa liñ ko dénkoon taxna na sëñu tëdd dina kon sëñ Ablaye ñi ngi taxaw ba ci kan inshallah jërëjëf sëriñ Basiru Seck ci euh, tomb bu am solo bobu mu melni ni mën nañ ci déggé né Cheikh Modou Moustapha li nga xam ne ni euh, def na ko ci taxaw njabootuk Serigne Touba ak njabootuk boppam ginnaaw bi Serigne bi ñibbi aljana mën nañu wax ne lépp lu ñittewoo defal na leen ko moo xam muy jàng moo xam muy euh, dëkkal leen moo xam muy taxaw leen ci anam yépp ba nga xam ne nii keneen képp kum ci doon feneen foo dem rek jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha ngay daal di gis loolu yaakaar naa ne euh, indi nga ko ci sini biir biiri kàddu waaye niñ ko waxee léegi rek xam nga bu ñu waxee taxawu njaboot wax nga léegi njabootuk bopp ak njabootuk Serigne Touba waaye nag murit yi nga xam ne ni ñoo toppoon ci Serigne Touba moo xam muy seex yi moo xam ñeneen ñoom ñëpp mën na ne am na taxawaay boo xam ne ni itam Cheikh Modou Moustapha taxawoon na kon sëñ Cheikh Fall ginnaaw euh, taxawaay bu am solo boobu nga xam ne nii gis nañu ne Cheikh Modou Moustapha amoon na ko ci njabootam boppam ak njabootuk Serigne Touba taalibe yi nga xam ne itam ñoom mën nañ leen a boole ci njaboot ak sëñ Tuba ban taxawaay la Cheikh Modou Moustapha amoon ci ñoom ba tey jii ñu gis réalisation yu mag yoo xam ne ni xëy na taxawaay boobu moo ko waral mën nañ cee tudd jumaa ji ak yeneen yu ñu demee. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Modou waa xam nga foofu moom dafa mel ni euh, loolu Cheikh Mamadou Fadel waxoon rek waaw Cheikh Mamadou Fadel dafa waxoon ni sos moom jeex na nee lépp lu mat a sos. magam ju baax na magam ju baax ji sos nako ko ñoom dañuy sof rek ndax njabootu li ñu ko waxee muy xam nga njaboot it dafa yaatu lool ndax man nga xam ne képp koo xam bi ak kilifteefam ci yow la nekk kooku sa njaboot sa njaboot la bokk euh, Cheikh Moustapha dafa mel ni bi fi Cheikh Xalim jógee dafa defaat beneen taxawaay boo xam te ne bii yoon yi ko woon a ñàkk ci njaboot gi ca loolu ba fi mais na wax ne loolu mooy dox ndax Cheikh Moustapha nim organisé yoon wi maanaam boo ko tàmbalee ci comme ni sëñ Bass ci ak njabootam boo ko boo ko génnee waaye tàmbalee ko ci seex si nga xam ne dañoo àndoon sëriñ bi Cheikh Modou dafa taxawaat taxawin boo xam ne bii tey kenn ku ci nekk fa sa waajur nekkoon fexe ne ba samp la fa waaye di la dimbale ba la sa waajur doon tekki ci seexul xadim mu di la fe mu dimbale yow ba nga mën koo tekki ci yoon wi waaye nag la ko jiitu nag mooy ak tarbiya kon dafa mel ni Cheikh sax dafa melni mam mana façon tarbi bi mu doon maanaam bi tarbiya bu bes la bu bu door a génn ca maanaam ba fin mu ñuy wax ak yeen model bob mo don tarbiya kep kuñ ci tarbiya rek da nga rañiko muy ci mom ba ci tawam bi ba ci daara yim soson seen comportement seenu doxeen nga xamni da ngay silvisé ku la gis xamni yimi yi muy ab daara nga waye da ngay silvisé ba pare nak don ko deg diiné don ko don ko mu rek gi lol ba fin toll da cee ko maanaam moom ni mu ko ni mu ko organisé woon ku ci ku ci laal ci moom rek da nga ciy wuuteeg ku ci ku ci laal ci moom. kon loola mooy ak taxaw ñi nga xam ne maanaam ay seex lañ comme ni ma ko waxee woon mu taxaw leen ba. te ban ngaa wax ni li nga xam ne moom lañ xam ci yoon yi muy gépp kilifa gi fi jóge ñu fexe ba sa sab taaw taxaw taxaw la maanaam wóotu la loolu ci organisation Cheikh Amadou Moustapha la ca mbokk yi loolu bu ko bu fekkoon taxawoo koon noona luy naqari lijjanti lay doon ndax nit nag ngir mu topp rakkam loolu moom daa mel ni Cheikh Xadim lañ ko mas a gis ak Mamor Diarra waaye day mel ni yombatut waaye taxaw gam gam ca taxaw moo waral tey léegi ñëpp a fi ne su fi kilifa kilifa jógee rek kan moo fay toog waaye moo def ca beneen taxawaay nag kilifa ga nga xam ne tey jii nii moo war a toog moo tax néew na fi ne tey nga gis ci yoonu murit koo xam ne ab taawam ma nga ci këram déedéet dana ko génne ngir ñu formé ji ko formation yoo xam ne bi fi ne tey ji nii yàlla yax mais saa ba fa kilifa génnee dana ma ñëw tax taxawaayu kilifa ga ci xam-xam waaye ci taalibe waaye ci mat kon loola taxawaay la bu am solo boo ne bi Cheikh Moustapha def na ko ci ñi nga xam ne ñooy ay taalibe waaye ci ñi nga xam ni maanaam dañ ko maanaam mas na ko tuddee ak njaboot waaye muy ñuñ ko jox ni ñooñu Cheikh Moustapha dajaa taxaw taxawaay boo xam ne bi fi ne képp koñ ko jox ba nga jógee fi boo demee fa nga jógee woon yow ab ràññikuwaay ngay doon ca loolu mën nga koo tàmbale ci ay turandoom Cheikh Moussa Fall képp ku ñu ko tuddee jox jox la ko yàlla defal la ko tawfeex ba ñu ci ëpp wóote nañ seen wajur ca kenn ku ne ba nga demee ab làmp nga fa nga nekk ca fa nga ko jëlee mooy ci Cheikh Modou Moustapha noonu ko suñu Basiru waxee Cheikh Modou Moustapha Fallu nettali na ko nee na Cheikh Modou Moustapha ci la gisee kilifa goo xam ne bii tey mooy jàngale mooy jiite mooy seddale waa nga xam ne lépp moom da koy def nga xam ne képp comme tàggat boo fi jógee loolu lépp da koy man maa ngi jëlee ci seigne Moustapha Béto yal nako yàlla doli leer mom yàlla dogal na ma ziar joon ko ben bis mu dem xamal bi yàlla dogalé mu bindu ab kamil ba diko andil Cheikh Modou Moustapha waxna ma kero ñaari domi seigne Moustapha yu mu fa fek euh seigne Aliou la wax ak seigne Mahamadan kharilo waaye ne bi mu nuyoo ba nopi dalena dalena wo ni len kaay leen nuyoog seen domi baay ji dalena ki de gis ngeen ni andi daal yene lu melni laa bëgg bala ma leen bala ma leen gisati ngeen ngeen def ko loolu Cheikh Modou Moustapha Bitton moo ma ko nettali kon njaboot gi nga xam ne képp kuñ ko jox def na ci yow wàccuwaay woo xam ne bii moom ni mu taxawee ci kanamu njaboot Cheikh Xadim gi te mat leen sëkk yow boo fa demee boo demee fa fa nga jóge woon noonee ngay mel euh, ba ci ni ko suñu Cheikh waxee njaboot gi nga xam ne ñoo njaboot Cheikh Xadim gi xam nga taxawu njaboot Sëñ Ablaye dafa am ay fànn yu ci nekk xam nit ki dana bëgg dana taxawu njabootam bëgg leen ba amal sa bopp ak njabootam bëggee def du leen ci génne ngir ak bëgg Cheikh Amadou Soufane dafa matoon ba nga xam ni képp koo aju si njaboot gi saa boo gisee bëgg ngaa bi jàpp na nii gënut dana la si jëlee kilifa gu baax nett leen ni jàng na cam cam cam bokk ak moom wajur bi mu jàngee ba noppi daa bëggoon a ni day jàngi faneen mais bi mu tàggoo Cheikh Amadou da koo jox ndigal ni ko na toog bi mu toogee yàlla dogal na ne ca toogaay boobee ca la ko Cheikh njëkk a feeñoo ca la ko ca njëkk a feeñoo sanc ab dëkk am turam ko tudde Cheikh Moustapha xam ne ko turoo dafa diis soppi ko tudd ko tudd ko waneen tur loolu kon bàyyi xel ci njaboot ak sàmm ko moo ko waral ndax ñaar yooyu yëpp benn bu ci ne bëgg njaboot mën naa tax maanaam mu bàyyi mu jàll ba mu ko ne day génne dem jàngi ci biti mën na ko demal wala ba mu tudd sanc ab dëkk tudd aw tur mu bàyyi ko ca mais kon dafa am mat sëkk goo xam ne bi lim lay bëgg bëgg bëgg ak li muy bëgg bëgg la neex loo jàpp ne lii moo gën ca lay jaare ni ko Cheikh Ahmad ba Basir waxee loolu soxna may nettali na ko ngir taxaw gi mu doon taxaw njaboot yi nee na ñoom jàppoon nañ ni Cheikh Modou Moustapha seen talibe bàyyi la loolu nag yemalewu ko ci njaboot gi mbokk ak Cheikhul Khadim waaye ay rakam ay rakam maanaam li bëgg wax mooy doomi Cheikh yi laa bëgg a wax ak talibe yi kon ñëpp la yemale woon ci fas yéene leen a jofal ca kenn ku ci nekk bu muy bu leen di ci digg ci Cheikhul Khadim maanaam Cheikhul Khadim bëggee woon mu mel ni

taxawaay bu am solo boobu ñu daal di koy déggatal waa jamono ñu daal di koy indiwaatal waa jamono ndax wax ngeen ko léegi kilifa yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa euh, wala kilifteef yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa bàyyee ko ci yow buñ ko jëlee ci euh, mbirum àdduna ki nga xam ne ni moo jiite réew mi ci benn côté ñun ñëpp ak njabootam la ay ministre am ñun ñëpp ak njabootam la nga dem ci beneen côté bi kon yaakaar naa ne jot na sëkk nag ñu daal di ñëw ci tomb bu am solo bi royee ci Cheikh Modou Moustapha ngir nag indiwaatal ko askan wi ñu xam lan mooy responsabilité diggante ki jiite wala ki yar ak ki nga xam ne ni euh, mooy yare jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ ci jotal gu am solo bi <clears throat> mu mel ne Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa jàppoon ne taalibe bi sëñ Tuubaa yëpp moo leen war a yor seen dund moom la war seenam moom la war seen lépp moom la war. Euh, ba tax na sax ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu mu daa laaj daa wax ñi ñi dëkk Tuubaa moom daanaka da daana leen xaw a wàcc léeg-léeg waaye ci mën a def nuuru naa laa nuuru na loolu yi nag ndigal Sëñ Tuubaa la ci moom ndax ñu ma wóolu seeni wax ñu nettali ma ko nga xam ne sama waajur moo ma nettali ma bi mu sancee Tuubaa Kajoor 1922 dafaa ñëw bëgg a dugg xalwa maanaam tàggu ji sëriñ bi ci njaarim ne ko damaa bëggoon a tukki ci biir kër gi sëñ bi na teg mu baamuwaat ko sëñ bi na teg ba ci yoonu ñetteel mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko jaxasoo ak bindeef yi di xam seeni soxla da ci def la nga mën moo gën di wér di jaamu sa borom muy benn ñaareel bi itam bi mu fiy nekk wutu sëriñ bi ñëpp xamoon ne ay yëre yombut dañ daan def ku fi mas a jóge mu jël am mbubbam jox la ñu sànge la ko am kuñ mas a denc ba noppi ci ñami waxal mooy yoon sa laaw day daanaka lu di ma sol day daanaka li ko tee des ci sama yére bariwut waaye taal diir bu néew am taalibe bu dëkk Gàmbi andil ñaari piisi mbasin jox ab piisu mbasin jox ko mu laaj ko ne ko ja ndax jaar na fa mu war a jaar mu ne ko déedéet mu ko demal jaar la ko muy duwaan mu delluwaat ba foofa bi mu waxee euh, kii nekk ci duwaan boobu tubaab bi fi nekk fa mu jóge mu laaj ko lu ko tax ñëw mu wax ko ko mu yéemu ci kaddu gi ak jëfik ndigal gi ak ko gi mu bëgg njub ak nit ñi ni ñu bëgg àll tam defi ji mu yëkkatiwaat beneen piis ne ko may naa ko duwaan bi ak addi mu ñëw ba mu ñëwee mu ne ko dénk naa leen ak njub ak tegu ci aw yoon kon loolu lépp am njàngale lay doon moo xam ni danañ ci war a mën a mën a jàppe ne Cheikh Mouhamadul Moustapha ku mënoon a dimbale nit ñi la ku leen bàyyi woon xel la yëmale woon ku yëmale woon taalibe yi nag njabootu Sëñ Tuubaa mooy bàyyi boppam yi yi ko fi Sëñ Tuubaa bàyyeeloon ak lenn ci magi taalibe yi ko ma a jógee Kajoor di ñëw da lay wax ndax jaar nga am Cerno boo ne ko déedéet mu boole lan ko jox ak lam am ne la demal yóotal ko baa bo joge côté bi ne la ndax jaar nga ci maam Cheikh ant bo ne ko dedet mu boole lam yor jox la ko ne ne la demal. ko nek da la tek fi barab nek ne bu ko fa kenn wessu di ma fa fek sëñ Blaaj bi mu ko ka bu gay daf leen seigne touba ngeen ma don topi andina len ko kon mi ngi euh bu de ci walu talibi nak ma ngi koy netali sank bay Mor sek mok sama bay ñoo bok ben bay ay na mbay mi xaw doy kiimaan lool bi mu defé limi def lepp ñaar fukki dërëm la dess mu xamul num ko yobbo mangi parce que booba magni bay ba nopi rek lañu mëna mën am àddee mu xép ñaar fukki néna bimu na mënu ko ñak jox sëñ Manu mu yegg nuyu ko ne ah mbacké day ñu ngi jéggalu ndax adé jëleen nda tuuti lool mu ko tuup ko mor nako fay nga ko mu waaw mu fay nga lemp mu waaw mu ko wutul nga kër sol mu waaw mu ko luñ mas am na fa mu waaw mu ko xana xamul loolu boko ko man la war boko man la war sa ko maay fay boo fayutoon leen maa koy fay kon daa jàppoon ne moom moo war a dundal njaboot gi wax nañ ne am nay jamono amoon na fi oto beneen oto bu ko joxoon boo xam ni ci jamono yi 39 45 bi guerre bi déclaré dund bi manqué maanaam réew mi nekk ci crise mondiale benn colon ci tubaab yi nekkoon njaareem am ku mu wóolu mu ñëw mu ne ko bu fekkee mën nga fukki fan ak juróom yu ne nga jox ma oto sumul ma jox la oto bii ba nawet wàcc da ngay indi oto su ma joxe fukki fan juróom yu ne nga indi benn tubaab bi jubóog moom ci loolu. ki ma ko nettalee nee na sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Basirou bañ ko yëgee ñu jàpp ne lim li mu joxe oto bi néew na biñ ñëwee di ci wax ak moom ne sëñ bi dana bëri dugg ci biir ab diir bëkk néeg ba fekk ko fa na ko day sëriñ Cheikh ak sëñ Basirou di ñu ngi toog ba tey ñoom mu daal di ubbiwaat bunt bi. nee man kat Basirou damay bëgg a jaarale xanaa xamu leen ni benn taalibu Sëriñ Tuubaa moom a gënal oto bi dimbale xettali benn taalibi Sëriñ Tuubaa moo ma gënal oto bi boo seetee ba ci ñaan yi mi ñaan te kadar te kadarati wa daaxat alal wara maanaam ñaan yi ñaan rek mhm. jullit yëpp lay ñaanal daane daana wax ne yàlla bu ma yàlla jëpp ci ñaan yi may ñaanal jullit daane wax ne boole nit ñëpp mhm. sol ci mel mbedd nay mbeddam teraanga foofu la soloon taalib yëpp moo tax kenn mënu ko woon a muñ kon sëñ Ablaye ñu ngi jërëjëf jërëjëf xam naa dañuy jëkkante ak waxtu wi ndax euh, ñu ñuy signalé kon sëñ Cheikh xam naa fi ñuy tëje rek yow itam ci euh, diirub benn ñaari simili rek euh, wax nañ ko sëñ Basiru léegi tomb bi nga xam ne ni moom lañ doon traité lan la ci waa jamono mën a yóbbaloo rawatina njiit ñi nga xam ne ni dañuy yar seenu njaboot. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Amadou Basir waaw Cheikh dafa mel ni ni yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon njiit jàpp naa ne képp ku njiital jamono war nga caa war bind ndax yonent bi alayhi salaatu salaam man ngaa wax ne mooy kiy jiite. waaye mooy atte waaye mboolem li ñuy soxla ci euh, euh, mboolem bi di soxla moo koy def takk sa ak yeneen ci aju ma jàpp nag lépp njiit fi ne loom si da ngaa doon njiitul réew wala njiit loo mën a doon yow it sa taxawaay mooy nii Cheikh Moustapha doon jiitee ak njaboot nag boo leen jiitee da ngay fexe ba la nga yor nga fes ko yéene bokk ak ñoom waaye ñoom la ñoom lañ yor nga bàyyee leen ko waaye ci sa der bii ni Cheikh Moustapha def nga xam ne dafa waxoon ne der bi moom daanaka da koo saraxe taxawaay boobu la war la war a am ci ci ñi may jiite lépp loo xam ne bii ñi ngay jiite ñoo la ko gën a bëgg nga bàyyee leen ko nga bàyyee leen ko kon damay wax ni képp kuy njiit njiit nag sa kër lay tàmbalee nga doon sa njiitul kër sa njiitul gox ba ci njiitam réew war ngaa jël ay bind seex ma Modou Moustapha nam doon jiitee ndax gëm jàpp naa ne képp ku ku taxaw ci taxawaay wala sax nga xaw koo jege ci nam doon jiitee ñi nga ñi nga jiital ñëpp lay gërëm ñëpp lay sant ci dañuy am jamu. kon japp na ni model la ci kuy njit ci ak nit ñi li ñu yor ca moom li mu yor mu bokkook ñoom waaye bàyyil ab deram lu ko neex lu neex waye nako wax ci mom du wax kenn lu ñaaw kon lool dañ ko wara dañ ko manam ñun jamono mhm. lu ñu war jëndel jëndee Cheikh Modou safa mhm. ndax sey baye jamono laaj nako lool xamna kaddu yi ngay mhm. di santat bu baax rek e, di gërem ci jotaay bi e, ci ni nga xamni non noonu ñu ko taxawoo waye di wax ni dal Cheikh Modou safa ab royukaay la ci anam yëpp boo na ne bi jamono soxla na ko kon jàpp nañ ni modèle la ci anam boo ko mën a jël ngir ñu delluwaat ci moom ngir suñ suñ dund gi ñu nekk mën a doon dund gu na tax waaye ñu mën a teg suñ tànk ci jaamu yàlla teg ko ci ndigalu sëriñ bi ba maanaam boo liggéey ñu mën a mucc ca ak njabootit ñu mën koo jof te bu ñu koy jofal la la ci suñu borom bëgg ñu mën ko defaale kon noo ngi sant ñëpp di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kon sëñ Basiru yow it dañ lay jox rek nga daal di yëkkati sa kàddu yi ngay tàggoo mm-hmm. waaw jërëjëf kàddu yi day xam naa mooy ni ko sëñ Cheikh Fall waxee rek njiit ak kilifa bala nga koo doon nit ki mënu koo doon te ragal yàlla amut ci moom nit ki mënu ko doon te njub amut ci moom nit ki mënu koo doon te yërmande ju bari amut ci moom waaye nit ki mënu ko doon te yar amut ci moom nit ki mënu koo doon te am xel nekkul ci moom waaye nit ki mënu koo doon te war ma nekkul ci moom mu mel ni yooyu yëpp nag Cheikh Mouhamadul Moustapha boole woon na ko ci jikkoom ji te makaarimul axlaax ci la nit mën a euh, téye àddina ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq li tax yàlla yónni ma mooy ma mottali tedd ngay jikko yi loolu nag mooy jéggal ku la tooñ jox ko lay xañ jokk ku lay dog loolu lépp nag mi ngi woon ci Cheikh Mouhamadou Moustapha moo tax bi maam Thierno nelawee sëñ Cheikh Awa Balla bi mu ñëwee bi ko bi mu diisoog moom ci wàllu kilifteef daf ne ko boo demee say doomi baay ak say rakk lu ñu yor nanga leen ko bàyyee loo yor na ko bokk ak ñoom na nga nangu ñuy ànc sa eh, na nga ah, ñuy ànc sa doole di reer ci sa der mm-hmm. sa doole di reer ci loolu boo ko defee yilif ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bassirou Seck jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci tomb bu am solo bi nga xam ne nii moom lañu doon waxtaane tey mu jëm ci Cheikh Mouhamadul mustafa ak taxawaay bu am solo bi mu amoon ci njaboot gi ak mbooleem jullit yi gannaaw eh, nekkook sëriñ Touba Cheikhul xa fii ci Daara Dunia waaye ñu dégg ci ay tomb yu am solo yoo xam ne ni itam wala yeneen tomb yoo xam ne itam yaatu na ci lool ci euh, fi nga xam ne foofu la jamono toll kon jot na sëkk nag ñu daal di delluwaat ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko rawatina nag ci ñi nga xam ne nii ñoom la doon yar. kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jataay bi nag doon ñaareelu jataay bi nañ ko waxeen ci ak njaal benn ngir bisub euh, ñaar fukki fan ci weeru muharam di bis bi nga xam ne nii ci la cheikhul xadim tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam ci taxawal cheikh Modou Moustapha mu def ca lépp ba tax saa su bis bi dikkatee nag ñi nga xam ne dañooy aju ci diwaanu Muddina lëkkale mbooleem munti këri Serigne Touba yi commission culturelle bi di ko waajale ci anam bi kon nag li benn jataay la di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xarala gi moo xam muy caméraman yi régisseurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañ koy yaatalaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ba fexe fépp fu mbokkum taalibe nekk rek nga mën koo seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje beneen ab jataay ci mu waajtaayu muharam 1444 2022 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu